bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal borom bi tabaraka wa taala defal leen tawfiq ñëwaat nañ suñu silsila xam naa ne tey yéex nañoo commencé waaye xëy na xat-xat yi la alhamdulilah euh, tey dañoo ñëw si téere bi di al yaqutatul farida bu Muhammad Nasifi rahimahullahu taala di ñëw ci fasl yi nga xamante si nii si lay waxee Euh, manaqib yi nga xamante si nii moom la at tijaan yi am rahimahullahu taala mu indi sa wax ji nag ñi si laaj firnde ci alquran sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu wax ne sa yanzilu qaatiman zuhura wilayatin fa laysa waliyun baadahu bilmasiati wa inni kanaytuhu abal faydi innahu yumiddu jamia alalamina bi faydati si gàttal daal mu ne at tijaan yi rahimahullahu taala mooy ki nga xamante si nii moo mottali wilaaya maanaam amul benn wali buy ñëwaat ginnaawam fa laysa waliyun baadahu amul benn wali boo xamante si dina ñëw dina ñëw ginnaaw ak tijaan yi waane foofu mu ne mooy ki nga xamante si nii mu ne innahu yumiddu jamia al alamina bi faydat maanaam mbindeef yëpp moom walla leen di xéewale mbindeef yëpp ki leen di xéewale mooy at tijaan kon nag nekk na loo xamante nii lu laaj ñu firndeel ko ana ban dalil ci alquran sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñuy ñu suñu loxo ne mooy ki nga xam ne moo mujj ci awliyaaw yi amut beneen wali buy ñëw ginnaawam ñun de bu benn waay fellee ñëw fee daan ne man am yonent la duñ ko duñ ko dëggal dañ naan ko déedéet dañ koy fenloo lu tax parce que dafa am texte bu ñëw ci alquranu karim di wax ak sunna si yonente bi salallahu alayhi wa sallam di wax ne amul beneen yonente buy ñëw ginnaaw yonente bi salallahu alayhi wa sallam wane kan moo ñu indil texte boo xam ne dafay wax ne amul beneen wali buy ñëw ginnaaw at tijaan yi fa laysa waliyun baadahu amul beneen wali buy ñëw ci ginnaaw at tijaan yi kon loolu ñu ngi koy laaj ñaareel mooy kane wax ji mu wax ne innahu yumiddu jamia al alamina bi faydati mooy kii dundal boo leen mbindeef subhanallah al azim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 di dellu si ba tey di topp bu gone gi ci li nga xam ne mi ngi koy wax te mu tegu ci ay làmbatu euh, waxoon na fi ne Cheikh Omar radiallahu anhu dafa wax ci dafa nettali ci rimaax benn wali boo xam ne daf doon jaay yàmba daat cay pare nga xam ne fa la wax jeem léegi naka la wali yu di jaay yàmba est-ce que nangam nangam fekk ba ñu ñëwee ci xisa bi tàllal ko foto ko won ko nit ñi nit ñi yëpp xam li xew moo nit yàlla boo xam ne dëkk bi yépp daanaka dañuy jëfandikoo lu mel noonu muy lu xaram waaye mu am saafara soo xam ne moom la ci indi moo di ne mu taxaw ci diggu mbedd bi di ko jaay ñu seetlu ne képp koo xam ne jox na ko rek kooka foofu lay jaaree bàyyi bàyyi jëfandikoo loola ba faw waaye wax ne kooka dafa taxawoon di ko joxe di ko jaay te képp kum ko jaay duutoo ko jëfandikooti ba faaw gone gi àggul ci loolu kon nag bu fekkoon mbiru yoon la dossier nit nga def noonu sañ na laa yóbbu ca yoon ndax li nga wax dafa wuute ak xaqiiqa bi am ñëwati na nag jekki-jekki tey mu riirati daal ne yaa xóotatul farida lay dem indi ca wax loo koy xamal ne yaaqutul farida ab nazmu la ab woy la te woy woowa am na chara pour nga bañ a juum dangay bàyyi yaaquutatul farida da ngay jëm ci téere bu ñuy wax ak duratul xarida mooy chara yaaquutatul farida nga xam ne baat bu ñu wax ci bayit bi danga mën a xool chara bi lan lañ ci jublu bu dul loolu rek da nga da nga yàgg xalangu àllum neen ndax dañuy wax ne xale buy jàng walla ndaw lu toll ci gëstu ci wàllu xam-xam li ngay amee sa xaalis dem di ko jëndee mu wotta fexe koo dajale jëndee ko tamhid bu ibnu abdil bar wala nga jëndee ko suruux yi yenn suruux yi nga xam ne mooy saraam wotta ndax su dul loolu rek nga jël waxu Maalik rek noonu ca téere ba rek dem di ko jëfe amaana borom xam-xam yi am na leeral yu bari yuñ ca def yoo xam ne egsiwul ci yow wala gisoo ko loolu nag daa mat a ràññee nga fekk téere boo xam ne ci téere tariqa bi téere ba wala boog nazmu la ab way la way woowa am na chara xam naa ne sax mosoo woon a dégg ne chara loo loola chara am na téere bu koy chara wala yu ni mel moom da ngay da ngay tàndatu rek wala ñu lay foto di la yónneel lu ci mënti nekk xamal na yaa ngi xalangu rek ñu ñëw nag pour leeral lii mu wax ni sayanzilu xaatiman zuhura wilayatin fa laysa waliyun baadahu bil yi ñu xool euh, bu ñu demee ci chara bi lan lañ fay fekk ñaari bayit la bala ñoo jàll ci ñaareel bi dañuy wax bu njëkk bi ba noppi fàttalikul ne gone gi dafa waxoon ne sayanzilu dana wàcc moom cheikh xaatiman di tëj buntu wilaaya nga xam ne fa laysa waliyun baadahu benn waliyu du ñëwaat gannaaw cheikh noonu la ko firee duratul xarida nag ki ko taalif moom moo ko charaal boppam tuddee charaaba yaaquutatul farida tuddee charaaba duratul xarida yaaquutatul farida mooy matnu bi mooy way wi boroom yaaquutatul farida moo charaa moo ko charaa tuddee ko ak duratul xarida léegi nag nga ñëw ci duratul xarida bi charaa bi nga xam ne Mouhamad Fatha an nadifi al faqihu nadifi lañ koy wax moom moo ko def ba mu ñëwee ci chara bi maanaam gone gi dafa waroon a xalaat rek sa yenn zilu dana wàcc cheikh fu mu wàcc ñëw cheikh fan lay jóge di wàcc loolu waroon na ko xalaat mu ne fii sa yenn zilu dana wàcc sa yenn ay isa alayhi salaam fi axiri zaman axira zaman baada zuhuri almahdi almuntazar isa gannaaw wàccug mahdi isa dana wàcc sa yanzilu dana wàcc moom isa gone gi nag daf ne sa yanzilu moom cheikh dana wàcc cheikh fan la jógee bay wàcc sa yanzilu xaatiman moom cheikh dana moom isa euh, dana wàcc xaatiman di tuj di tëj zuhura wilaayatin génnug wilaaya maanaam wilaaya dootul amaat gannaaw isa abadan moo tax mu ne fa laysa waliyun baadahu benn waliyu du ñëw ci gannaaw wàccu isa bil machiati ci loolu nag mi ngi aju ci coobare yàlla yàlla moo tëralee mbir yi noonu waaye feeg isa ñëwaatagul feeg isa wàccut waliyu moom du dakk faaw day am kon na xam ne moom mu ngi ci xalangoom googu ba tey sa yanzilu ay sayiduna isa alayhi salaam axira zaman baada zuhuri almahdi almuntazar isa moom nag bu wàccee benn waliyu dootul wàcc léegi moom lii bu ko diggee dafa war a bàyyi silsila gi moom te xam ne tey tañaxu di dem rek ñu ñëw nag ci wax bi nga xam ne moom la faqih nadifi wax wa inni kalaytuhu abal faydi dàkkant ñu ngi ko dàkkantale nag moom cheikh abal faydi gone gi ñaari bayit yi dend moo ko nax mu jàpp ne lii lii lay fi waaye affaire yi ay tandatu du ko lijjanti faawu jàng rek wa inni kadaytuhu maa ngi dàkkantale cheikh nag abal faydu abal faydu maanaam mooy borom faydu bi moom cheikh yàlla subhanahu wa taala dafa dogal li muy xéewalee ay jaam dafa am ci ñu mu koy jaarale ñooñu nag ay jaaruwaayu xéewal lañ du ñoom ñooy xéewal yàlla rek mooy xéewal amul kenn koo xam mooy xéewal kenn loolu kenn gëmu ko yàlla rek mooy xéewal ku mënti doon waaye xéewali yàlla nag day am sabab xéewali yàlla itam day am jaaruwaay ñoo xam ne ci ñoom la yàlla di jaarale xéewal yi ñuy ay rigol yoo xam ne ci ñoom la xéewal yi jaar di wàcc ci jaam yi jaaruwaay booba nag mooy jaaruwaayu ki nga xam ne mooy alxaqiqatul ahmadiya loolu nag firi ko lu gudd gudd la eh, waaye doy na ci rek ne waliyu yi ngay yi ngay dégg wala wilaaya yi ngay dégg ay laqta boog ak waa soog nangam nangam yooyu yëpp ay fonction la yoo xam ne mbiri yàlla day jaar ci ñoom di wàcc ci jaam yi loolu nag lañ tuddee ak tëbb lépp luy jóge ci yàlla daa am yoon wu muy jaar wàcce woon naa fi fan yee benn xadis boo xam ne benn euh, lenn lu jóge ci imam ahmad mu wax ne abu zuraata razi abu zuraata ci labdaal yi la bokk alladina bi bihumul ardu ci la daal yi nga xam ne ci la yàlla téye suuf si ci ñoom maanaam téye gi yàlla téye suuf si secret boobu mu ngi jaar ci ci ñooñu te abu zuraata kenn la ci loolu imaam ahmad moo ko wax yu mel noonu nag day am ci xéewal yàlla yi itam ay jaaruwaay loola bañ ko mooy ñàkk xam-xam waaye koo xam ne loo ko wax mun la luy luy lay weeg foo ko teg boo ne ko diw wax na ko itam mu féttirlu kooku daanaka jot a waxal imaam ahmad wax na ne diw sàngam ci lab daal yi nga xam ne ci la yàlla téye suuf si ci lañ bokk waxam jooju rek doy na ma sëkk may indi yeneen wax yuy jóge ci yeneen boroom xam-xam yi waaye nag dama bëgg a dugal wax joo xam ne waxu ibnu tay wax wax ñu wax ci ibnu taymiya la damaa bëgg a dugal nag li nga xam ne moom laay jeexalee dañuy laaj lay lan mooy wane ne cheikh mooy xaatimul awliyaa eeg yu ni mel te loolu sax amul ci texte bi moom xaatimul awliyaa bi ñu doon wax isa tax ñuy wax comme jàngoo nag daanaka yu bëree bëri daf lay rëcc waaye ibnu taymiya ci uqudu duriya am na ñetti way te du yooyu kese bëri na lool sax luñ ko way tuddee ko xaatimul ulama loolu itam war naa laaju lay bu dee xaatimul ulama mooy benn borom xam-xam dootu ñëw ci gannaawam ndax loolu la Ahmed Lo bind ci taqdis asxaas ci xaatimul awliya ne li muy tekki dëgg-dëgg mooy benn wali yu dootul ñëwaat léegi xaatimul ulama yi lu muy tekki kii nee na ko tibta nafs tibta maswan yaa xaatima al ulamaai fi maqaami zulfa ma al atqiyaai moom sax du ko dugal àjjana te àjjana jotagul maanaam im tey ma nga àjjana moom te im tey mooy xaatimul ulama xaatimul ulama fii lu muy tekk ak luy layam am na beneen way bu ko keneen way ne ko yaa xaatimal fudalaai ilmuka mujizun bahara alwara fa sadartu anhu mumina dégg nga mu ne ko yow ibnu taymiya yow yaay xaatimul fudala gaa yu baax yi yow yaay seen xaatim kon xanaa ibnu taymiya ba mu jàllee ñu bon rek ka fi des loola xaatimul fudala boobu lu muy tekki foofu ak luy layam yaa xaatima al ulamaai saxa bi mawtika al xabaru alladi yarwihi kullu mujawwidi yonent dafa waxoon ne xam-xam deesu ko jël rek daat koy yéege déedéet waaye boroom xam-xam yi lañuy yéege borom xam-xam bañ mujjee yéegee nag ci borom xam-xam yi nag mooy Ibnu Taymiya nga xam ne après moom ay consort ay ay ay ay def ko konoré ñu xamul dara rek fi des yaa xaatamal fudal ulama yi saxa bi loola itam lu muy tekki ak luy layam kon mën nañoo taxawandi foofu rek ba ba beneen e, wax daati jógaat insha allahu wasalaamu aleykum wa rahmatullah